ginnaaw ca tukkee ni gën i démb Sénégal bokk na ci réew yooyu di produire jëf ju ni mel jàppale nag ni loole bokk na ci yéenekaay bi xëy na fànn ci xëtam bu njëkk ni gën i démb nag la ñu ko tàmbaleeg barigo bu njëkk bi nga xam ne ñu ngi koy fas yéene génne foofe ca boruk Sangomar looy naka nekk bés boo xam ne daal dana bokk ci taarixu réew mi waaye tamit bésu ko Woodside bu ñu sukkandikoo rek ci suñu naataango Thierno Ly nekk nag njiital mi nga xam ne am na askanuk Sénégal ñu ngi ci fas yéene jëfandikoo bokk na ci tam lu yéenekaay bi nettali tey jii daal mbiru ko njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye nga xam ne nee na nag teel a gën a dogu ngir rek ñu gën a sauvegarder maanaam nag aar lépp loo xam ne moom moo ñeel yu réewu ka Sénégal la le public quotidien moom ci genre lu ni mel nag nee na Sénégal dugg na ca production ba bu baax a baax Woodside nekk nag ab opérateur bàyyeekoo ca réew ko Australie actionnaire majoritaire la rek ci biir Sangomar moom nag génne na rek pétrole bu njëkk tokk-tokk yooyu ne muy phase bu njëkk nag ci mbiru ko Sangomar investisseur nag ñoom jamono ji ñaar fukk ak ñett daal ci ay teen la ñu cay xaar ni fukk ak benn ya nag ci wàllu ko production bi la fukk ca des injection ndox la ñaar ya ca des ñeel wàllu ko gaz ba yéenekaay bi xëy na fàng ci xëtam bu njëkk l'indépendant yéenekaay nag nee nañu Sénégal jamono ji xel yëpp bàyyi nañ ci moom gët mënees nañu ko rek gis ci xëtu njëkk yéenekaay bi Sénégal bokk na ci nag tey jii taarixam la ñu cay dugal ni producteur la ci wàllu pétrole Woodside daal di nag génne démb bërigo bu njëkk ci euh, loole di Sangomar nekk rek ci biir wax yi fii ci réew ko Sénégal jàppale nag ni euh, lii nag ndorteel la rek ci li nga xamante ne ni pàcc bu rëy la ñeel réew ko Sénégal bokk na ci tamit lu ñu mën a nemmeeku ci tukkalu Dakar waaye yéenikaay moom nag nee na gën gaa néew daal cent mille wàllu ko bërigo la ñuy xaare ka bés bu nekk ci foofee di Sangomar nekk nag jamono ji ju njëkk fa nga xam ne daal jot nañu cee génne coowal li nga xam moom moo ñeel wàllu ko pétrole bi bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango addu jëmale ci bés bi le jour jàppal nag ni jamono ji nee na nag yaakaar gu njëkk rek la ñu mën a am ci euh, lépp loo xam moom moo ñeel jamono ji mbiru ko pétrole bi Sangomar génne na rek bërigoom bu njëkk njiitu réew mi gën rek xam ne nag ni dana leen gunge ba fa yëfee daal di yem mu mel ni jamono ji pàcc bu njëkk bi fësal na daal la mu ca ay fas yéene amala selon Woodside nag maanaam bu ñu sukkandiku rek ci mbiru ka Woodside jamono ji daal ah, la ñu cay xayma ci biir Sangomar daal bokk na ci li ko dalee ñeent yu toftal juróom-ñeent jàpp rek juróom cay milliards ci wàllu ko dollar loole ah, bokk na ca la ñu fësal tey ji waaye ci wet gi ah, source ay yéenikaay moom la mu xam xamle moom mooy nag bokk na ci kilifa yoo xam ne daal seen ak xam-xam màcc na lool ci mbir mi le ñoom ña ngay artu bokk na ci daal Biram Diouf moom la mu cee xam ne daal moom mooy amul benn parti barigo boo xam ne daal jamono ji dana mën a fay ay investissement waaye tamit mënees nañ ci rek gis ne ab séddoo dana am diggante Petrosen compagnie bi ak état bu réew ko Sénégal jàppaleen daal ni waaye lépp daal mu ngi daal dépendre ci loolee nga xam moom moo nekk barigo yi ñu fas yéene génn bés bu yàlla sàkk Omar Moussa daal di ko feelu moom mi nga xam ne daal xam-xamam wàllu ko contrat yàlla sax la gën a màcc Petrosen Sène jamono ji la mu war a def moom mooy euh, fexe ba gën rek ànd ak xelam ngir rek euh, yokk liggéey bi ci coow loo xam ne euh, moom moo jëm mbiru pétrole wi la askan wi ñoom ñu ngay yuuxu wàllu loole l'exclusif fa yi nikaay moom moo xëy di ko dëxëñ xëta mu njëkk jàpp nag ne ndox mi jamono ji kenn mënu su koo teg bët bokk na ci daal loo xam ne askan wi ñoom ñëpp yenoon nañ daal seen ak bopp di ko waxtaane Dakar ak banlieue ñoom ñëpp mar nañ jamono ji bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango ndaxte nag jamono ji nga xam ne ñuy waxtaane tàngoor wu métti fayu ko tabaski ndox lu ci am solo la askan wi boobaak léegi daal gisuñu ko ba tax na duut nañu baaraamu tuuma ñii di waa Sen'Eau yéeni kaayam nag nañu nag la waral coolu ni mel bokk na ci liggéey boo xam ne ñu ngi koy defar ci a fuite bu am ci ab conduite boo xam ne ma nga ca usine KMS 3 société yi nga xam ne nag jamono ji ñoom ñoo ca nekk jàppaleen daal ni ñoom ñu ngay fasal seen ak état de lieu wutali palais de justice bu Dakar ak direct news yéeni kaay ñu dellu si waat ci kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko direct news ñu xamal ne moom Willy Pandé na rek magistrat yi le waaye boobu ak léegi UMS di kuréel gi leen ëmb jamono ji patt pataaral la def loole daal gën sax jaaxal suñu naataango te boobu léegi daal ñuy fàttali ne lii bu ñu ko gisoon bu njëkk daal ñoom ñooñe ab la ñuy génn rek ngir wax la leen naqare waaye daal jamono ji xas nañ leen ba ñu ràpp te amul kenn koo xam ne dégg nañ ko ci mu dal ca yey di ca yàbbi enquête yéeni kaay moom jamono ji des naak ñun nag ci mbiru créance a tension yi nga ne gis nañu ko daal ci lépp téeméeri milliards ak ñaar fukk yoo xamante ni ñi naaw nañ ca ngelaw la bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi naka la rek la nguur ak Sénégal daal di fexe ba def teg loxo nag ci loolee di institution bancaire ba bokk na ci firnde gu yéenekaay bi indi waaye tamit yokkute fukk capital bile nga xam ne daal kenn xamul fa yëf ya jaar bokk na ci la waxtaane Sénégal dellu na ca ñaareelu ka place bu groupe B loole éliminatoire bu coupe du monde 2026 la record yéenekaay moom moo ñu koy xamal ndax ca démb Soudan euh, loxalul ci kanamu tekki na ko làpp ko ñetti bal ci dara bu waral nag jamono ji Sénégal daal di rek jëlaat ñaareelu ko place ba bu ñu koy xayma nag ñoom ñuy si Sénégal ñoom ñoo fas yéene fekkiwaat ñu di waa Soudan ci li nga xam moom moo jëm ci juróomeelu ko bëcëg ba loolee nekk bés boo xam ne nag dana fësal ne gaynde yi am nañu taxawaay ba ñu amoon wala boog déet des na nañ dinañ di ko waxtaanee nag ñuy tey ji ay saa lii mooy lu xew fësal tey ji